abonnez-vous ciao le su nekk di ànd ak di leen faram-fàcceel xibaar yi tukkee ci biir réew mi. ñu dooree ko ak kàddu yi Ousmane Sonko yëkkati jëmale ko ci président Macky Sall te ñu bari ne mën naa taalum réew ndax xeexu waaso la ñaar ñi di xeexee jamono jile mu di uh, kàddu yi nga xam ne waxoon na ko fi ci ay jamono waaye dafa ñëw dàbbaliwaat bi la yoon ni mu ko waxee ñu bari dañ caa gën a bàyyi xel ne président Macky Sall dafa bàyyee xel ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca Casamance ba dañuy gis rek à chaque fois bu lu mel ni manifestation amee. ca Bignona dañu leen di faat ndax dañu leen a jàppee ay rebelle ak yeneen propos yoo xam ne teg na ko ca tax na ba mu ko waxee léegi ay homme politique ak ay kilifa yu nekk ci réew mi dal ñaaw lu bu baax a baax kàddu yooyu nag nag nee nañu moom Ousmane Sonko kilifa gu day ni moom bëgg yorum réew ëllëg warul mën a yëkkati yi lay kàddu di ko wax ndax kàddu yile ñaaw na ba yegg ci lool ñoom nag dañoo jàpp ne ñoom ñoo ko fi njëkk a wax maanaam président usman Sonko ak président Macky Sall seen xeex bile buñ ci teelul jokk dana dem ba rek askan wi dana jaxasoo su nekk ci lu tukkee ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak coalition Yewwi Askan Wi ñuy yëkkati yenn genre kàddu yi ba askan wi duñu mujjee lu dul di rayante ci seen biir ñu àddu wax ci leneen mu di Cheikh Omar Diagne mi nga xam ne depuis weeru avril ba léegi ñetti weer yoo xam ne def na ko ci kaso gi daal dinañu koy bàyyi tey ab bàyyi yëpp liberté provisoire maanaam bàyyi yëpp négg ndiku ginnaaw ab avocat am sàkkoo woon ñu daal di koy bàyyi moom nag la ñu ko doon toppee mu di wàllum diffamation ginnaaw bu mu yëkkatee woon ay tuuma teg ko ci ndoddu maître Djibril ñu bari jàppoon ne nag loolu dañu ko doon def rek uniquement ngir ñom ñoo di LGBT yi taxoon nak am ñu doon jox ngir xex xex bi lu ci mujj sax Karim Guy Gay xurum xax ñi ko doon wax ne war nañu amalam ndaje ndaje ma mujjul am té libéré nañu ki nga xam mom modi Cheikh Oumar Diagne di secrétaire général euh, du rassemblement pour la euh, vérité ci walum trafic visa mi ñu jappé Simone Kaku ak kile di kilifa te ñu jàppoon procès bi ca tribunal correctionnel bu ndakaaru renvoyé woon ko ba le sept niki woon démb mujjuwul antu ba tax na renvoyé waat nañu ko ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet gi ñu dëkkmal ñu wax ci li nga xam ne moom moo di la xew ca Touba Mbacké mu di génnuk àdduna ak Ndeye Diop Ndeye Diop nag nee nañu benn euh, waayam bu mu doon nekkal di a Mbacké moo ko dal di faat boobu xibaar nag gën nañ cee xuus ngir andi cay leeral ginnaaw bu autopsie ba génnee la mu wane du lenn lu dul Ndeye Diop dafa ëmboon ba toll ci juróom benn weer waaye lañu doon wax ci nañu ko faate am na leneen lu ca yees dañu doon wax dañu ko dóor birig rek waaye eh, ginnaaw à Mbàkke ba mu ko dooree birig mu daanu ci suuf di lapp lappi daf ko dal di jam lu tollook juróomi jam-jam yoo xam ne eh, ci la ñu daal sukkandiku rek ba wax faatin gu ñaaw gi nga xam ne à Mbàkke dina koy faat copinam ba wan di eh, ndey ñuy déglu di ñu taataan ci biir coow li Sénégal abonné leen activé seen cloche de ngeen ngeen man duñu teewlu saa su nekk jàngeen jëf Abonnez-vous, ciao le Sénégal